subhaanahu wa taala julli ci yonentam ba sayidina muhammad sallallahu alayhi wa sallam ngi ndokkeel jullit yépp gannaaw ba nu baalee xaq ñépp balu xaq ñépp yàlla na nu yàlla boole jéggal ndokkeel jullit yépp ci weer wi nga xam ne ci lañu dugg yàlla na nu yàlla may nu àggale ko jàmm te fekkewaat ko déwén muy weer woo xam ne sunu borom mi ngi ko boole ci weer yi nga xam ne moom la tudde al ashhurul xurum waaye am na ci fukki fan yoo xam ne suñu boroom joxañ na ko am lu mu wane suñu demee ci alxuraan danañ ci fekk suñu boroom du waat du giñ waaye la muy wane daf ñuy fekk ci suñuy waxin ak suñuy déggin mu jëfandikoo baat waat yooyee daf ne wal fajr li feeg li may wax du dañ li feeg fajr mi ngi am di dem ak dikk lii may wax du dañ li feeg fukki fan yii nga xam ne moo jëkk ci weeru tabaski mi ngi dem ak dikk wal fajri wala yaalin ashri fukki fan yooyu nag benn ci ponk lislaam yu mag yi daf caa nekk muy xaj makka waaye ñi nga xam ne ajiwuñ makka it am na joxoñ bu ñu leen ca joxañ muy mu bokk ci as sunan mu muakkad muy tabaski <clears throat> bis bopp suñu boroom daf cay sëmbërtal ay njéggalam ci ku jéggul suñu borom daf cay far ay rëcc-rëcc ci ku nangu ne def na ay rëcc-rëcc waaye suñu borom daf ci yëkkati ay daraja waaye daf ci nangu ñaan euh, moom rekk moo xam lu tax waaye bis la bopp ci ab jullit njàngatum kese la ab jullit war na caa jàng nangu lu yàlla dogal ab julit war na caa jàng lu mu yor yàllaa ko moom saa su ko laajee war na ko ko delloo waaye ab julit war na caa jàng yar sa njaboot ba saa boo ne yàlla nee na duñ ko teg baat muy bisub topp yàlla di bisub sant yàlla sant yàlla nag ni ko ab jaam di defee mu tudd sant yàlla mooy su dee <clears throat> bis bu ñu demee mu fas yéene teg tànkam fa ko ko yàlla tegloo ci bis ba jaare ko ci njàngaleem yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mi nga xam ne moo wax ne bisub tëbaski bu ñëwee nii lañ cay def mooy ñu waaj julli ji bu nu fa bu nu sëlmale ci julli ga ñu dellu sa kër ya lewetal gàtt ya nee na ku ko defee nii mu ko waxe jaar na ko fam ko jaar loo waaye nag koo xam ne daa lewetal door a julli ji am nag ndawal waaye bu mu ko tuddee mukk tabaski muy lu yomb dégg aw inna awala ma nabda'u bihi fi yawmina hada an nusalliya thumma narji'a fa nanxara fa man faala dalika faqad asaaba sunnatana wa man dabaxa qablu fa innama huwa laxmun qaddamahu li ahlihi laysa min annusuki fi shay euh, jëfandikoo ndigal suñu borom ci tabaski nag day laabal ab xol daf cay dindi sikk sàkka la cay tegtal mooy suñu borom rendi noo la rendi loo na kenn ci jaamam ni doomam ju mu jur bëgg ko lool gannaaw bu mu ko sabab loolu yàgg yàgg yàlla joxu ko ko waaye muy wéy di sabab lu di ñaan ba yàlla jox ko ko ba mu yaakaaru mu ne ko rendi ko tegu ca baat kam doon rendi tégu ca baat bu yàlla bu fekkee yàlla ko digle ay ca kam ko àndal amit ci coobare suñu borom ne bu fekkee yàlla ko digle ay ca moo la ko joxoon ndénkaan la ndénkaan nag ki dénkaane saa ne nee mu daal war a mel nam meloon bu melee na meloon sax sàmm nga des na waaye daa war a gën na ci la ko sunu boroom weccee ab gàtt wa fadaynaahu bi dibhin azim wa naadaynaahu an yaa ibrahima qad saddaqta ruya kon day laabal ab xol ci sikk sàkk diggante nit ki ak boroomam waaye it jubluk tabaski du tuur deret kese bokk yi bu tabaski di jóg li ëpp ci ñi ñi cay wax lañ cay wax weesuwut xar dana am waaw wala déet te moo ne xamuñu ne tabaski xar dana ko def xarum tàppaanga di ko def xarum tàppaanga sax am na ñu ne moo ca gën xar mu jigéen di ko def bëy wu góor di ko def bëyu tàppaange di ko def bëy wu jigéen di ko def ñu soo ko dem ci nag la nag di rëy rëy kon walla gëléem taamoo wuñ ko ca li fekk xar ak bëy ngi mën a am lu tax xar rek bokk yi dañoo ne ci réew moo xam ne dañuy farfarloo ci lépp ba ci diina ji nga xam ne sax ñépp ci bokk yam ja jekkoon na kenn ku nekk fam far gis kam faral tër xarum tàppaa nga ci ca fa ñuy jullee wala ca ëttam ba rendi ko muy am tabaski wala mu tërëf xar mu jigéen bu fekkee yoon terewu ko def comme tëbaskeem <clears throat> li ma jublu si yoon nag mooy ñoom dañoo lay ne suñu wéyee daray xar yu jigéen ñi lekk tey xar dootu am waaye jullit bu ko am tam sës fa moo fa sës seetu ca lii ak laa lu dul ndigalu suñu borom suñ ca jógee dem ci bëyu góor ak bëyu góor wuñ tàpp ak bëyu jigéen yooyu yëpp nag munta maase bañ a am su ko defee ne kenn ku nekk kam faral jaadu woon na mu joxe bind ci ne xar daal bu tabaski xar daal bu tabaski bëy mën na ko wu góor ak wu jigéen wala xar muñ tàmm wala xar mu jigéen moo tax li tax tudd nag ak gëléem te ñëw ëpp xar ak bëy yàlla nee na soxlawut yàpp wi soxlawut deret jiñ ciy tuur waaye ki koy tuur na ko ko jaral rek lan yanaala llaaha luxuumuhaa wala dimaa'uhaa walaakin yanaaluhu taqwa minkum ndax it kum ko jaral ku ne xam na ne ci jamono ji ñu toll léeg-léeg nit teg loxo am xar ne ñaata ñu wax ko njëg koo xam ne mën na leneen lu dul am xar waaye yàlla day seet lekko ko sa ñor ba xam jaral na ko waa ji waaw wala déet su xoolee jibam attanu ko na dem wuti xar muñ tam ndax ñu bari tam muñ ko te moo ne nee na yonent bi sallallahu alayhi wasallam jëfandikoo na su ko amul mu dem wuti xar mu jigéen su ko amul mu dem wuti bëy waaye li ci dugal li tax ñëpp joxañ xar xar xar xar lu bari wut nag faaw njëgg yokk yoonu yaxantu moo demee noonu am na ñu koy wuutee nu nekk nu ne ba sax di wuure wuure ngir am am xam wure mooy lan da ngay dégg ku naan ñun diw ñoom fii ba tabaski ga soo defee nii wala nga jëndee fi ñun nàngam man nga caa ame numéro bu lay jox xarum tabaski bokk yi nag lu ci nekk cosaan la daa war a rafet li yàlla di digle tabaski lépp ne nañ ko wuti digle waale wu ca ñu di ko wure nag wure mooy carte rek nu mu gën a yomb a xamee da ñu ne ku woote ci numéro bii mën ngaa bokk ci ñiy tànn jox la xar su fekkee xar la tax di woote yaa ngi yaa ngi wure su fekkee amam xar tax ngay woote yaa ngi wure buñ ne ku jënd ci barab sàngam nangam lu toll nangam mën ngaa bokk ci ñiy jox xar su la ko taxee jënd yaa ngi wure am xarum tabaski te nag yàlla du teg jaam bi lenn loo xam ne xamut ne man na la yukallifu llahu nafsan illa wusaha su fekkee xar mu baax lañ ci bëgg daal ba tax ñuy wëree ngir am xarum ki jaratu ko ndax wut la ko noona néewuñ na ko nit carte am ko na nit bokk ci promotion am ko su fekkee bokk ko daal moo la cay tax am loola carte dong la tudd ku jënd nangam mën ngaa am ñu jox la ci xar yi bu la taxee jënd ca xar yi nga bëgg waaye jënd taxu la jënd bëgg jënd tox la jënd soo ko ci amee nag dangaa ngaa wure yàlla noonu yàlla musal ci bopp pas-pas waaye nag suñ gëmee ne yàlla moom xar mu mag mi ñu di ko soow ñoru ko ci la ko ca ñor mooy na ko jaral waaja rek te yàlla tax yàlla tax waaye bokk yi ñu delluwaat ci bu tabaski jubee am nañu juutuñu bëgg a gis kenn ndax waxi xar te yàlla xam na ne amuñ xar yu ñu joxe mën naa am sax ña am xar yu ñu joxe kenn moom da caa mënta àgg muy àgg ñi ci des moo tax ñi am xar yu ñu joxe war nañ ciy def social bu baax baat boobu rek laay wax nit ñi mën koo xam social mooy laal mooy tànn balaa tabaskee ñëw ñi nga xam ne seen loxo jot na seen gannaaw ku loxoom jot gannaaw mooy ab xiibon nga xam ne loxoom yi day sew ruuj fu ko neex lam jëme ko fa kooka buñ ko tànnee ab lim ci kuy am nangami téeméeri xar ku nekk xam ne nangami téeméeri xar ëpp na mu tabaski waaye nag am am lañ wax am am la am yow nga ne keneen am ñu tànn ci mbooloo moo xam ne nii ni réew mi dunde dana tiis ñoom lool bis ba agsi te lewetu luñu am xar am na ñooñ dañ fay doxe génn dëkk bi bañ koo fekkee dem feneen mu fekk leen fa ndax dañuy wax nag kër du tas gannaaw borom ñooñu ñëpp nag moom lañu suturaal dëkkandoo wut ci tuyaaba néeg bañ ne ginnaaw suba la nga bett ko ndànk guddi wàcce ko fa dem ñu bañ a xam ko ko waaye nee daal diwa ko moom loolu dana tax ku ci nekk def ko ci sagoom sagu ci ak njabootam ak ñëm dëkkal su fekkee ñëw ñi rek lañ ciy bàyyi xel waaye moom moomee ko joxe bu ca waaje amee yool rek du xañ yool bam ca nar a am ndax bu dul nag moom du lewetal kon ñi ne ci ginnaaw te seen loxo jot seen gannaaw mënuñu dara jéem taxuleen a man waaye waaye nañ leen di gestu ngir yàlla te yàlla rek tax waaye di ko jox ñoo xam ne dañu koy sëf ci seeni oto di dem di ko puukarewoo di lim naan diw moo ma jox mais diw moo ma jox mais kenn ku nekk bëgg a bokk ñi muy lim naan jox na ko mu toll nangam loolu yàlla nekkatu fa saa bu fay jotee bay ba mu seeti keneen ku koy fay ku yàlla moo tax muy xew-xew bu am solo boo xam ne du xar kese moo ci am solo waaye ki koy def na ko def te yàlla jaral ko ko daal waaye it bis la yooyu ku ko man bu mu tànqal nit ñi nag naan allahu akbar laa ilaha illallah ca kaw ba kenn duutu mën a nelaw waaye su tabaski gi desee ñaar ba ñetti fan ba tabaski ki jàll nay faral di wax lool allahu akbar allahu akbar laa ilaha illallah wala ni ñu koy defe noonu moom la ñu tuddee ayyamu moom la suñu borom di wax ne wadkurullaha fi ayami maadudat loolu moom ñay aj ak ñi dul aj ñoo ci bokk yam génne kenn kon gannaaw yàlla soxlawut euh, deret ji soxlawut yàpp bi xar mu rëy mi amalu ko ci solo xar mu matum tabaski lañ wax waxuñu xar mu toll nii toll naa waaye xar mu matum tabaski lañ wax te bokk yi kat ku ci am ngénte dana ko jaral lu nekk benn ñam ko siqal bañ koo yàpp ñaareel ba it gàtt ba ñuy tëral ca ëtt ba di ko defarit ku ko xool xam na ni ab gàtt dëggantaan la te fekk gàtt bi tudd mooy bi bi mën a tabaski rek waaye njiggu kawe gi amu ca njariñ béjjën yu gudd yi amu ca njariñ taxawaay ba amu ca nopp yu gudd yi amu ca njariñ lay la nga ca gannaaw gudd amu ca njariñ nga taxawaay baat nattukaay bu réy bi ñu koy natt naan xool leen xaram mi amu ca njariñ yàlla soxla wu ko ca la ca yàlla soxla mooy mu jaral ko yàlla mu jaral ko ko mu def ko te yàlla tax kon bis la boo xam ne doonte danañ ca togg ak yam yi àndal jëfandikoo ko la ca gën a mat sant yàlla ñu xam ne gàtt bi ñu tëral lewetal ko daa am ndigalul suñu borom ci loolu yow nga am ci ndigalul suñu borom waaye woroomi bokk la am na ndey am bàyyi ak i mboolem li ñuy am ci bokk da koy am donte nag looloo tax yàlla sàkk ko waaye ku ko tëral di ko lewetal mu xam ne du puukarewu ndax loo xam ne bala nga ca bég bakkan daa rot dara woyofu ca bakkanub xar laa wax wala bëy su ko defee kon ñu baal ko xel bu baax a baax te ñi ko manit ñuy baal xel niñ dëkkal te mënuñu ko bokk yi baamu du wax ji bari waaye fàttali la koo xam ne am nga lu ëpp fukki xar yu ñu la jox sakkantuma ay téeméer ëpp nam tabaski balaa tabaski gi ñëwati xaw naa lee mu weesu waaye su benee ne bu ñu waree rek nañ tàmbalee xool ñi nga xam ne soxla nañ ko te duñ mënuñoo dem di wax seen bopp suñ mag bi am na ku ne woon ñaanal ñu mu taw mu taw de yàllaa ko moom mbaa fonk ngeen asaka ci wàllu mbay mi ñu ne ko ah kay kooku ne ko ah kay mu ne ko nu ngeen koy génnee mu ne ko bu dee mbay de bu ñu waññee juróom-ñeenti tànk bu dee ngar lañ bëgg a def wala jaag ba benn ba benn jéego ba dañ koy ber def ko asaka mu ne loolu de asaka la waaye su ngeen génnee génneetee su ngeen wàññeetee juróom-ñaari tànk ñetti tànk ya def leen ko asaka gannaaw jàngalekat la woon nag danañ ko ne lu tax ak nakamu kooku ne ko xanaa ne loolu ñëw ci alxuraan mu ne ko ah kay wallazina fii amwalihim xaqun lissaa'ili wal mahruum xaqun lissaa'il mooy koo xam ne mënu ko limaare si ñiy jox asaka jee nga jëkk wax ndax am na sag te mën naa ñëw wax la boppam nga bàyyi fa benn xaj ba ñooñu waaye benn xaqun lil mahruum ani su'aal koo xam ne am na sag te mënut ñëw ba mënoo koo boole si ñiy jox asaka ndax melu ko melu melukaan ko wax. waaye mënut a ñëw di wax boppam ndax yu baree tax mënut a dem di wax boppam kenn sax far kooka nga di ko fa fekk ndànk buux ko ko yaag moom ak yàlla ngeen xam te nga bañ mere ko bis rek naan xanaa tey la waaye at yëpp maa ko yoral am taw si kam loola yàqu na te kat ëllëg yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nee na yàlla nit dana ko taxaw ne ko fay ma mu ne ko lu ma la ameel lu bari la waaye su ma jëlee rek bi ñuy waxtaan bi ñuy fàttalante mooy ba ma joxee diw at sàngam ak at sàngam ak sàngam at mu jot ma jox comme tabaski loolu xanaa da nga ma ca fay dara mu ne ko loo ci jublu woon mu ne ko sa jëmm ji mu ne xaaral ma laaj ñi mu doon yónni ñamey yónni ñamey laaj nag tekkiwut daa xamul waaye atte moo laaj lool ñu ne ko déedéet daa bëggoon nit ñi waxtaane ko rek moo ko koy jox ak mu jot dong yàlla ne ko loolu amoon nga ko ca waxtaane woon dañ ko jeex na mooy ñi nga xam ne moom la alxuraan di wax yonente bi xul hal nunabbi'ukum bil axsarina amala alladina dalla saayuhum fi lxayaati dunia wa hum yaxsabuuna annahum yuxsinuuna sunaa te doo ñëw ma wax la ñi nga xam ne si ëllëg dañuy perte lañ defoon lépp mu ne ko ah kay ñi mu doon mu ne ko mooy ñi nga xam ne dañ doon Euh, sàkk di sànni maanaam tibb ci gerte gi di sànni ci àll bi wala di sànni ci ndox bi bu dee àll bi sax mën nga ko gisaat waaye tibb gerte sànni ci ndox bi ci biirum ndox am na lu ñuy ji loo xam ne ngay tibb di ci ndox mi waaye loolu ak defar la muy ceeb ceeb ku koy ji day tibb di day yàq waaye kay moom jubluwu ca dara lu dul ñu naan moo koy joxe moo koy joxe yàlla ne ko amoon nga ko ca euh, wa hum yaxsabuuna annahum yuxsinuuna sunaa jàppoon nañ ne lañ doon def lépp baax na ndekete yoo dañoo yor lu mel ni ak sendal di ca rootloo nit am ndox mën nay root di sotti waaye dara du du feeñ ci sendal gi mën naa tooyal tuuti waaye du feeñ ci sendal gi moo tax suñ Fallu Mbàkke ne woon na tax ba ca nit naan ngéeja ëllëg mooy ba yàlla tax rek waaye su fekkee nit a tax da koy wutal ab bën bën lu mu ca def mu jàll yàlla noonu yàlla defal dégg topp te fekk loo nu ko te man loo nu ko lu ñu cay def yàlla tax te musul ñu seytaane ki bakkam gafarallahu lana wa lakum wa li saa'iri almuslimina amin tiliku lu bokk ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam rawatina bis bi yàlla indee kenn ku dib julit mënu koo bañ yoon wu ñuy war a jaar ba mën a gañe Sëñ Tuubaa gisaguma seetloo nu gàtt ba di mel euh, ñii dem ci ay barab dafa laaj xari tabaski bari na ci ñoo xam ne dañoo rayab gàtt rek waaye yorut nattukaayu tabaski yonent bi sallallahu alayhi wasallam dafa wax ne ñeenta ngi ne yoo xam ne bu dajee wut ci am xar am kóoy bu fekkee mënees na ko am su dul am kóoy ñu wut xar mu jigéen wala xar muñ tàpp doore wuti bëy wu góor wala wu jigéen wala wuñ tàpp doore dem ci nag te ku mën a am ku munta am xar munta am bëy fu muy jëla nag war naa jaaxal nit waaye jàngale mu dul bàyyi dara euh, <clears throat> day mucc ci yii day mucc ci tey jii bu ñu la ko doon jaay daal maanaam man nattukaay bi yomb na suñ la ko doon jaay tey moo ko moroomam doo ko jënd boo yore xaalis di jënd buñ la buñ la koy jaay doo ko jël ndax lan menn xel la yor wala far ñaari gër yëpp dana tat katuus wala mu ràgg ràgg ba nga xam ne mën ngaa xàmmee yax yi bu benn bu ne fam tàmbali ak fam yem walla muy soox soox bu metti walla boog benn béjjén ba damm wala genn ba dog wala nopp ya yooyu ku ne xam na ni foo fekk ay tànnee fi xar mu mel ni ñoom waaye benn bu nekk ci yenn ci ayib yi xar moom ci nekk benn jën jën jëne xar moom ci nekk ki xaalisam di jënd moom mën na ko bañ a tànnaale waxuma laa nag yëpp daje ci menn xar loolu tam lu ci matu bàyyi xel day mucc ayib du pat du làggi du yooy waaye it deesu ko sol itam ñiy jaay itam war nañ cee bàyyi xel jar am njaay ku ko gis defe ne bu baax la te baaxul waaye daa am waxtu wuñ koy lewetal mooy buñ julli jee ba dikk julli ji nag saa bu jant bi fenkee ba naafila dagan rek waxtoom la ba mu midi di jot kum xas baraw nag jeex na am na ñooñ dañuy biddanti dem fekk ñu julli ba noppi ñu daal taxaw fa ñi doon julli taxaw daal di koy julli baat ñàkk xam kon saa bu jant bu fukkeelu fan ci weeru tabaski fenke ba naafila dagan rek waxtu julli tabaski jot na euh, julli ci gi tabaski gi nag ci bis bi la bokk euh, moom it ñii ñëw ci fan yi di ñëw danañ ñëw insha allah waaye ñu xam na it defar gàtt bi yëmul rek ci bisu fukkeel bi wax naa léegi ne ñiy aji makka buñ defee li ñuy def ci bis fukkeel bi ba noppi dañuy delluwaat munaa def fa ñaari fan wala ñetti fan moom la alquran di wax naan wadkuru llaha fi ayamin maadudat fa man taajala fi yawmayni fala isma alayhi wa man taaxara fala isma alayhi liman ittaqa mooy démb la woon tabaski mi ngi ko fekk munaa lam fa doon lam fay liggéeyee mooy xëy dem sànni jamra dellusiwaat toog wala muy doxi soxlaam bu fa xamee aw nit bërki euh, bërki démb la woon muy ñaareelu muy fukkeelu fan ak ñaar moo gën a neex xam moom it sànni ci jamra foofa nag alxuraan nee nag ku sànni fukkeelu fan beeg ñaar su ko neexee mën naa ñibbi Makka ca dalam batale jamraab subaam waaye kum soobit mën na faa toog ba ñetteel ba nag moo gën bu ñëpp defee ne bu ñëpp demee ci ñaareelu fan yi kan la kan moo lay sànni walla jamra bu mujj bi moo tax bokk ci ña ñu yóbbante jamra bu mujj bi am solo lool loo xam ne junniy kilomètre la nit dox door a agsi ñu ne ko benn bis ci des war naa neex war naa yomba muñ moo tax ñetteelu bis boobu ku wut fii am tabaski te amu ko buum ne weesu na mën naa wéy di ko wut ca nam ko war a wuti nag wutin bu dagan démb la woon bu rayee